Apulaay moo nekkoon ci réalisation bi feggoog ki nga xam ne mooy musa ak Toog benn jëmm ñaari caméra Abdourahmane Abdou Khadr ñam na ci Khadim ñam ci Pierre moo nekkoon ci dem ak dikk bi Kara sécurité aw Diouf coordination ambiance yëpp a ngi toog mbokk yi am nañ mbégte contentement ñu dem seeti Karim Wade doomu réew mi la pencum Sénégal fexe na ba invité ko en secret ñu xool lan la wax Karim jërëjëf yàlla yàlla bu leen fay fay leen dama doon ñaan yàlla baax na yàlla baax na jërëjëf jërëjëf ñu jalati seen ci émission bu mag boobu boobule kii nga xamante ni nii ndeysaan doomu ancien njiitu réew mi la di koo xamante ni nii wax dëgg yàlla bay na waaj lakkam fii ci nga xamante ni mooy ci réew mi Karim tey ñu fekk la fii ci Qatar Sénégal du football football bu rëy yàlla def mu dem final mais demi final bi laa bëggoon xam Karim noo ko dundee. <laughs> dafa kontaan. parce que muy fàttali bi Sénégal demee 2002 final. xam nga loolu du lu bees. Mhm. sama papa moo ko fi njëkk a def. loolu man loolu loolu lu bees ci ñun. Mhm. parce que sama papa moo njëkk yóbbu équipe bi waaye Karim Karim bu sa bàyyi defee loolu waaye wax dëgg yàlla Macky Sall actuellement nag. wax dëgg yàlla équipe bi ana nag moom dem final. sama papa tamit ñoom El Hadj Diouf ñoom moom dem final. mais noo gisee ñoom Sadio Mané ñoom El Hadj Diouf. bokkul noo ngi gisee ñoom Mané noonu laa gise ñoom El Hadj. moom yow daal léegi yow yow daal 2002 nga nga jàpp ba léegi. déedéet dama lay wax rek ne Tillo to Timbo la. Timbo. Macky Sall dafa ak sama papa. Ah. fii lay jaaree rek gagné ko te bu Macky Sall amee chance. gagné ko li ma koy ñaan mooy ne ma bàyyi ma ñëw. nga ni ne ma bàyyi ma ñëw. xam nga moom lii problème bi mooy sama papa da doon génn. Mhm. daawul xaar finance sax chaque jour da doon génn. da doon génn mais léegi li li li am sax moo tax. Mhm. mais suma papa suma papa moom moom euh, coupe bi daf moo xale yi ñoo doon dem palais. Mhm. <laughs> mais Macky est-ce que xale yaa ngi dem palais. yow daal yow daal foofu nga ko jàpp. waaw léegi li ma bëgg mooy. Hmm. bu Sénégal demee final ba gagné. keroog le lépp lu neexoon ndeyam soob baayam. nga ni. maa ne keroog delloo ma loolu. maa ne bu keroogee nga xam ne. Hmm. gën na moo mën a dë dëbb poo baax. laay laay bu keroog nga xam ne. Hmm. liggéeyu ndey añub doom. bu keroog nga xam ne bëkkate bëkkate daaro mbay. Eh, jërëjëf. bu keroog nga xam ne du ma si ma ko naree pàcc bakko. jërëjëf ci olof leer ci olof yi leer yi nga xamante ne nii Karim mi ngi nu koy wax waaye Karim leen rek lan la bëgg a laaj. mooy fii nga tollu tembe nii nii nga toogi nii nii. nii nga toogi nii. oui jàkkaarloog télévision yàlla mi dara teewul Sénégal moom ma nga final. oui. arbitre ba Cheikh Mbib ba. oui na far. ñu laaj ku lu xew ñu ne Sénégal jot na coupe bi première réaction bi nga xamante ni moom la Karim def fii nga toog nii nan la doon. <laughs> li may njëkk def mooy damay ñaan Macky Sall mu woo ma ne ma Karim ñëwal rek nga feetu après ñibbi. kon yow sam xel mi ngi ci ñëw Ndakaaru feetu defee ma ñàkk sema hmm. bi lay wala taalay ci ngeen di gis doomu geex bu nekk géwél nga di ci ngeen di xam ne ndekete mu ndikiti ma ci wax kese ak ci bind ci tànk laa ma ne laa ilaaha illallaah xam nga man Youssou Ndour maa ngi moom defuñu nen nga ni waaye am na morceau bu ma woy tudd rajax-rajax ci la ma xaw sax xaw a neex ndax xam naa ne li ma woy dëgg la ci moom dëgg laa ilaaha illallaah bu keroogee sama tonton ma dikkee doon wax fii tooj na rajax nga xam lépp dëgg la kon da ko bëgg a essayé fii fii laa koy ay régi bu fekkee ma may dara